mbokk yi seetaan seen télévision GMT TV ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission bi ñu tuddee yow la kan di jataay boo xam ne ñi ngi ko jagleel jumaay tuuba ñi ci nekkoon di ci liggéey ñu di leen fàttaliku ak ñi nga xam ne tey taarixu jumaa ji ànd na ak seenub dund ñooñu lañ bëgg a fàttaliku fësal seenub liggéey leeral niñ ko daan defee waaye itam ngir ñi nga xamante ni liggéeyal Serigne Touba ñor na leen ñu mën a roy ci ñoom tey nag suñu jotaayu tey dëppoo ak gaaw fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet atum 2021 tolloo itam ak juróom benn fan ci weeru zulhijja ñu koy wax weeru tabaski atum 1442 ñu si war koo séq nag ak koo xam ne euh, bu ñu ko tuddee ñu bari danañ xam fi ñu jëm fi ñu jëm fan la mooy mag ñi nga xam ne ñoog jumaa ji ñoo soqeendoo àndandoo di taxawu jumaa ji nag ci wàllu am solo goo xamante ne lislaam da koo soññee muy setal jumaa mag ñooñu nga xam ne ñoom lañ bëgg a fàttaliku tey kiñ ci toogal nga xam ne moom lañ war a ànd ak moom ci émission bi mooy sëriñ Mouhamadul Mamoun Sarr sëriñ Mouhamadul Mamoun saar moomu lañ fas yéene séqal tey suñu jotaayu émission yow la kan kon ngir njëkkanteek waxtu duñ def rek lu dul jébbal ko kàddu gi mu nuyoo bu ko defee ñu tàbbi ci biir waxtaan wi sëñ Mamoun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. badu ausu billahi min asheytaan rajim wa bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa mbokk ñu ngi nii ñëpp di leen siyaare di leen balaak di fas yéene andi kàddu yi nga xam ne moom lañ ñu soxlaal tey jii ginnaaw bi ñu jullee ci yonent bi tudde yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi tey gërëm sëriñ bi noo ngi leen wax ne nun Moodu Maamun Saar lañu doomi bàyyi sëriñ Saar bàyyi sëriñ Saar doomi Seex ma Saar Njaañ di Modou Mamoun Sarr doomi soxna suñuy wax soxna sëyn bu Guèye moom itam woo juróom di sëñ ma Guèye jama sëñ ma Guèye jama di doomi Cheikh Adama Guèye ma doon koo xam ne kii maa ngi mën naa ne maa ngi juddoo Touba doon ci lu ne ci àll ba juddoo ndax la sëriñ Abdou loon naa ne sëñ Touba eh, mboolem taal ku dëkkul Tuubaa ku nekk foo nekk moo la jox ñaan ne def ko fa kon foofa to ci Tuubaa la bokk kon dëkk bu ñuy wax Tuubaa moo xam laa laa gudd gane àdduna daanaka nag yaroo ci dëkk bi maa ngi daal jàng bay sëñ jatara nekk fi ba dem njaareem kasi moom bay siise nekk ba sunu waajur jël na fa ci coobareem xam naa ne da ngeen noogal di liggéeyal Serigne Touba andi nu Touba woo sëñ Moustapha Sy maag sama rak Saliou ne ko ñii dama bëgg nga jàng leen ak taalibe te yee leen ci téere ñu yër ba yeewu waaw boo nag si Moustapha Sy mu nu jàngal taalibe dana jàngal xam-xam ñu jàngab diir mu dikk laaj ñu wax ko fu mu toll mu ne doy na ba bañ ëllëg ngeen di yër di nakk-nakkalu ayam jàng du seen du seen wàll dikk leen liggéeyal Serigne tuba daal ñu jégal jébal sëñ Abdou Lahat euh, sëñ Saliou sama rak sëñ Saliou sëñ Abdou Lahat dem jox ko sëñ Saliou ci boppam man des ak nekk ak moom ca kër ga ab diir mujj nekk ci daara ji ab diir mujj ma wàcc ba dikk fii bañ takkal ma soxna ba sama kër taxaw yàlla dogal ginnaaw bi sama sama digg sëñ doyut doylu ma ci liggéey sëriñ bi ma laxas delluwaat ci daara ja eh, delluwaat ci daara ja ba ma delloo ci daara ja ci diggante boobu nag alors sëriñ bi jëlee ci daara ji andi ma ci kër gi Touba Belal ma nekk fa diir bu gàtt mu andi ma fii ci jumaa ji waaw. bi ma fi sëñ Abdou Lahad ci jumaa ji. moo ma andi ci jumaa ji andi ci jumaa ji. yow boobu ban ban at ban la war a doon. année bi jàpp ma année bi waaye yomb naa xam. Mm-hmm. ndax bàyyi sëñ Njaañ bu so Eh, dëkk ko fi indi bi ñuy waajal màggal gi ca gàmmu gi mu indi ma fi bañ gàmmu ba noppi waaw xam naa loolu mooy dëpp ak loolu. kon mu mel ne buñ doon wax sëñ Modou Mamoune Sarr moom. Hmm. daa mel ne ci murit gi la léppee. Hmm. ndax tudd nga sëñ. Eh, Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr Ndiaye. Hmm. waaye tudd sëñ Adama Gueye. waaw ñaar ñooñu nag ñaar ñu mag lañ ci ñaari kenn lañ ci yoon. waaw waaw. ñaar ñooñu ñoo la seq. waaw kon nag yow mënoo doon lu dul ab taalibe bi. donc donc <laughs> mënoo doon lu dul kuy liggéey sëñ Tuubaa. donc waaw jërëjëf. loolu ma loolu lay tax doyul ma tax ma delluwaat ci daara ja. tarkal loolu moom lay dund ba nëgëni. tarkal mhm. loolu moom siira zaatiya bu am solo la. Mhm. boo xam ne ku ko dégg da ko naw. waaw macha allah. Mhm. loolu sant nañ ci yàlla bu baax. ndax ñàkk a doyal ga dafa mel ne ku jóg di liggéey jamono ji ndax mag ñi ba ñuy liggéeyal sëriñ bi xamuñu woon ne wàcc am na. ñëw woon moom wooy loolu it ndax loolu sax firnde am na ci ndax sunu Ibrahima Sarr sëñ Bamba daa xëy woo bis woo ko ne ko Ibrahima Sarr kaay ko mën na ko digg mu ne ko yow ko mu ne ko loo digg mu ne liggéey mu ne ko liggéeyal ba faatu la sa borom sëdd ëllëg nga cër ma ci. mu laaj ko mu ñett wax ko mu yëm ko loolu mu ne ko Ibrahima Sarr wàcceewu ma damaa la soppiloo ab liggéey. kaay dellu fa nga bàyyi koon boo demee ku dikk fa yàgg na nga ko faa toog boo fa toogee ba yor ma fekk fa defar ko. loolee nag mu mel ne sama lax dellu ci daara ji ñàkk doyal mhm. moo tax ma dellu ci daara ja mhm. waaye ba may yëg yëg ba ma amoon it moo bëggatuma dara ci àdduna lu may liggéey sëriñ bi li ma am lépp ma yónnee dama saa bopp ci daara ak samay loxo kese ak la nga xam bu yurtuma dara lu may yére yi ma soxla téere du leneen téere yi ma amoon sax dama dama ko yónnee sëriñ bi bëggatuma leen lu may liggéey sëriñ bi loolee nag ca laa nekk fekk nga samp kër fekk naa ma samp kër sëñ Abdoulaye moo ma moo ma takkal soxna hmm. dama am ak moom doom. moo tudd moo tudd bi xare bi tudd ko sama baay. ginnaaw ba laa laxas dellu ci daara ji. moom moo taal otam dikk ci daara ji sax di mu wër bañ ko joxee bagage ne ko maam dem na ci daara ji moo taal otam maa nag sama juf lambay ñu dem ca daara ji daara yëpp ñu ma mu dogg dellu si woo sëriñ Basiru nekk maa moon wër naa ko ci daara yëpp gisuma ko waaye bu nekk dana ko gis. yàlla su ma mu wër wër bi ma ci daara may liggéey mu jox ma yére sëñ bi ne ma sëñ bi ne ngay sul yére ndax boo matuma yére <laughs> loolu amut jàpp jàpp moom jàpp jàpp moom leneen leneen leneen ci àdduna damay liggéey sëriñ bi loola moo ma jàpp ba léegi nag ndax ndax fi mu ne kuy liggéey kon da ngay néegu jàpp jàpp da war a wàcc ba fii ma mën ne ba fi desam yi nii da euh, xam naa loolu pas-pas boobee ak ndigal sëriñ bi moo fi bàyyi ba léegi sëñ mu talib buso bi sëñ bi demee dama ko nuyu fii mu ne ma ah yow da nga àndoon liggéey da nga àndoon liggéeyal wàcc na man de ku ma kulee wàccati xaa xaa da nga toog ba mu neex nga ba ma nekk fi nekk ci loolu ba bu yëggu ren ji ma dem sëñ Sidi wax ak moom ñu waxtaan ba ba àgg ci loolu man ne ko man de fu mu ne sëñ bi yow lay déglu foofu mu ne kenn du la de. ce <laughs> kon moo tax gëm na kon pas-pas boo yëkkatoon. pas ma ah, ko. <laughs> Mm. jërëjëf. Ah, kon mbokk yi gis ngeen ko de. Mm. présentation bi am na solo. Mm. mel na ne. jaar-jaar bi mu wax moom ku ko dégg da nga yéemu bu baax a baax mm. da nga xam itam solos tey li waral jataay bi mm. euh, ngir roy ci ñu mel nii waaye itam euh, xool seen dund gi am njariñ gi mu am njariñ ñu mën koo bàyyi xel ba mën a xam ñun ndaw ñi fu ñuy teg suñ tànk ma Mouhamadou Mamoun tey mm-hmm. jataay bi ni ma ko junjee mooy dañoo bëgg a waxtaane nag ci mag ñi nga xam ne mm. bi jumaa ji sottee mm-hmm. ñoom la sëñ Fallou laajoon kër yi fi nekk kër yu mag yi fi ne mhm. jamono suñ Tuubaa gi mhm. ak yenn seex yi ku ne indi kenn mhm. ngir ñooñu ñu booloo mën a taxaw jumaa ci ndax sëñ Fallou xamoon na ne barab bu mel nii tabax bu mel nii mënta koy sàmm gannaaw suñu borom subhaanahu wa taala islam moo santaane ñuy jumaa ñu koy taxaw ci wàllu set rek di ko sàmm mu xam loola tax mu ne kon loolu mënta ñàkk ba tax mu defoon ko 1963. le 7 juin 1963 lañ inauguré jumaa ji. Mhm. booba mag ñooñu ñëpp la sëriñ bi dajale woon. Mhm. teg jumaa ji ci seen loxo ñu mhm. koy taxaw. loolu lañu bëgg tey nga dikkal ñu ci. historique gu lool. nu mu demee woon. nu ko sëñ Fallou defee woon. ak mag ñooñu nu ñu fi nekkee woon. waaw laaj bi de mm, li nga laaj yow mat na. waa ngir ma ma mottali ko ci tontu mat. dana jafe. Euh, ndax loolu nga wax moom loolu fekkoon fi ba sëñ ko ko sëñ Fallou def fekkoon fi amaa booba noo ngi fi ay gone lañu xamuñu lu ma noonu fi mu fi mu mën a leeral mooy fi mu tàmbalee ak bi ndikkali fi fekk tàmbalee bi ma bi fekkee tubaab beleel waxtaan man ci loolu bàyyi ma tubaab beleel ab diir mu am pas-pasu indi ma fii fekk wax naa ko wax na ko sëñ Abdou Khadre wax ko sëñ Njaañ Buso mi fi nekk laata mu ma ma man sax foofu ba mu dikkee woo ma ne ma jumaa ji dafa am mbooloo ma far ñoo xam ne mbo ñu war a moom jumaa ji noonu la ma ko waxee ku nekk da fa faa seet sa ndaw sa sa ndaw ñu nekk fa di taxaw jumaa ji di ko buub ak di ko seetal ak di ko taxaw man na moom ñi ma fa yóbbu woon dama leen di wàccee mooy ñi ma fi doon fekk si booba seexu naa saar sama rakk mu ngi fi woon ñu bokk baay Malick Sarr sama rek mi ngi fi woon ñoom ca daar jëliñ sëñ jëli woon nekk leen fi sama rak ñu bokk baañ fay nekkoon mu ne ma dama leen di wàccee dimbalee leen boo leen Basiirou saar mii seen taaw bàyyi ñu war na ñoom liggéey dikk nekkal ma fa xamal ma ne ne ba mu nekk njëriñ ni ni mu woon boppam wax ci ak man wax ju yaatu ba ca ndaar yi mu doon def ca kër ga ngeen suturaal boppam mm-hmm. Euh, euh, wala ba ñuy tabax euh, ba ñuy ba ba ba ñuy tabax jumaa ji mu ngi doon sax dugg seen lam ci santaane yooyu yëpp ngir warmaal boppam moom nag sëñ Tuubaa nag ginnaaw nii la warmaaloon boppam ah ñun ñi fi nekk da bu ñu tudd moom buñ dee dara sax mooma kon buñ amee dara ci jëm war ko warmaal daat na ma boo fa nekkee daat na ma nekk tëb lu ma nekk tëb lu ma tëjee lu gën a jàkkaarloo noonu boo demee na nga nekk moom na sa bàyyi sëriñ Saar nekkoon ak moom nañ su bàyyi sëñ Saar nañ ko Cheikh Ibrahima Sarr tuddee woon jox ko mu nekk moom na mu nekkoon moom na nga ko nekk moom sa maam Cheikh Ibrahima Sarr na mu nekkoon moom na nga ko nekk jama nekkoon boobee na ko nekk moom daal di may daal dikk fii ñu dikk moo wala moom mu dikk Touba jóge Touba Bel fekk ko fi ma wala si Moustapha am sëñ sëñ Abdou Khadir boole maam moom ne ko nuyoo bu ko sëñ Abdou Khadir ne ko kii laa ko doon wax daal na ma yóbbu ko sëñ Njaaña boo demee ne ko kii laa ko doon wax na ko boole ak Cheikh Fall mu boole ko ñiy liggéey ñu àndi liggéey su si Moustapha def lool dem sëñ Xaadim mu ne ko sëñ Abdou ne kii la doon wax doomi sëñ Saar di sëb suñ mëggee jëma mu ne kooku de na fee nekk mu dikki bàyyi sëñ Jaañ ko sëñ Abdou ne kii la doon wax nee na nga boole ko Cheikh Fall mu boole ko ñiy liggéey ñu àndi liggéey mu daal bay yóbbu ci bàyyi Cheikh Fall mu woo Cheikh Ndindi boole ak maa moom ñu daal tàmbali liggéey mu fekk bàyyi Cheikh Fall bàyyi seex Fall mag la moo xam ne mi moom li ngay laaj mel na ne ci moom la tàmbalee ndax bi jumaa ji noppee la ko sëñ Fallu jox te bàyyam mooy moo yoroon kër kër gii nga fii la jumaa ji nekk ba ba kër kër loolu sëñ bi àdduna ko nettali ba ba bàyyi ma ko yoroon moo tax bu noppee sëñ Fall sëñ Fall te fab teewi jox ko waaw loolu bu ñu ay gone yi fa lañ ko daan fekk noonu boobu sax ay gone yu ndaw lañ ba yàlla dogal ñu dikk fekk bokk bokk ci liggéey bi bàyyi Cheikh Fall daal may booleeg Cheikh Ndine Cheikh Ndine booy ndaw li nga xam moom la sëñ Fall lu bàyyi ba tegoon muy ko lool ñëpp xam ko ma fekk fa Cheikh Ndindi euh, muy ndawul sëriñ Fallu fekk sëñ muy ndawal kër sëñ Basiru fekk fi Mamadou Dia muy ndawal kër Cheikh Moustapha te sëñ Mbàkke Madina indi ko fi euh, fekk fi Mahmoudan sëñ Mahmoudan Sall waaw sëñ Mahmoudan Jóob toog ko fi teg fi ku ñuy wax Mbaye Ndoye sëñ Murtala Mbàkke toog ko fi euh, ku ñuy wax Basiru Jaañ it fekkoon nañ ko fi moom itam mu bokk kër sëñ daa Abdurahmaan loolu la bokkoon waaye ci ndigal kër sëñ Fallu la fi nekk woon waaw ko ñu Musta ku ñu wax Moustapha Kaye nekkoon na fi bokk woon ci euh, ci daa ci ci ci lestu daara ji waaye bokk na ci liggéey bi yoroon na euh, jumtukaay ak bale ànd ak noonu fa mu jëm mu ànd ak nekk ci liggéey bi euh, ak sëñ Abdou Khadir Samb sëñ sëñ Abdou Khadir teg ko fi ak sëñ Baye Laay Kan sëñ Saliou teg ko fi ñii ñoo fi bokkoon nekk di di taxaw jumaa ji di ko sellal yemuñu ci woon sax ndax kër si kër si sëñ Abdoulaye dama xam ne ci ci ci ci ci ci jumaa ji la bokk kër Sëñ Tuubaa jumaa ji la bokk nga xam ne boo amee ñaari fan ñetti fan semaine bu ne daan dem daaw di kaamil bubbi ko bu ci ëllëg saa ñu demaat kër Sëñ kër ko nii lañ fa nekkoon waaw yooyu yan waxtu ngeen daan ngeen fa ngeen daan tàmbali liggéey bi yan waxtu waaw bu ma saan xëy nag euh, ñi kenn ku nekk fa sa yitte toll ñoom ñoo fekkoon man man booba ndaw laa ci seen biir ñoom ay mag la woon xaj na seen kattan demu doon noonu waaye ñoom bu yor yor rek ñaare daañ ñëpp daañ fa dajee ñu andi liggéey man nag daanaa def bu ma xëyee fi lay jullee si suba bu ma sëmawee it tàmbali liggéey liggéey ginnaaw bi liggéey am mag laa ko bokkaloon daanaa seet liggéey bi nga xam ne duñ ca dem bu ma xëyee nekk ca buñ dikkee ma tëral loolu ànd ak ñoom ci li ñuy liggéeyee lañ lañ daa def loolu lañ xam daañ ci dem mooy boobu kaw gi lënd yi bari na euh, euh, euh, te liggéey bi jafewoon na booba ni mu ni mu jàppe noonu jàppandoo woonu koon tapis yi des a des goo xam ne gi ban suuf batis man daf ko dikkee ma mbérool ànd loolu lañ nekkoon loolu loolu rek diisaayu liggéey bi dis nga ëpp na foog liggéey bi moom loolu moom firndeel na ko waaw ndax Moukhaddamatoul Khidma bi muy sosu 1984 mm-hmm, mm-hmm. lu mel noon la fi fekk mm-hmm, seetlu bu mel noonu la amoon jàmm sos dinaa ci ñëw ci kanam waaye ci liggéey boobu mën nañ koo tënk ci bale la woon buub fëgg tàpp yi wala dindi lënd yi comme ni nga ko waxee euh, liggéey bi loolu rek la woon euh, wala am na leen lu ci yokk woon waaw liggéey bi yooyu nga tudd yooyu la woon am na lu ci yokk ndax sëñ bi sëñ Abdoulaye moom da doon sàmm ba war ma jumaa ji bu baax a baax ndax euh, dañ dañ daan wër lu fi nekkut ak ku fi war a nekk ñuy taxawaaloog mm-hmm. ñuy def lu mu def lépp loolu moo gënoon metti suñu liggéey sax ndax nit ñi dañoo dëgëroon bopp te dëgëri fit te lañ lañ la dana femme te mënut ñu def ko te fas yéene lu sëñ bi sant foofu ñu def ko waaw. am na benn bés ma xëy si di liggéey si fekk fii ci fii rek fii loolu yokk amagu fi diggante fii kër Sëñ Fallou fekk benn waaye bu géew nit ñi wër ko muy diwaan fekk maa sol mbubu mbubu mbubu yi mu seeb la solo di joxoon laxasaay boole ci. nuru nuru ab dongo boo xam ne bii eh, damay nuroo eh, bu tarxiyee kon ba tax da daayira mu jaamur la ñëw ah, waaw waaw da la xaw a nuur ñoom loolu lañ daan sol ba fekk benn waaye bu bu bu buy woote di coow coow woote doon la ñuy def ma dikk tere ko eh, mu gàntu ma tere ko mu gàntu ma wan ko gannaaw mu ne ma atu jaañ sa sa man xam na ma dal sama kaw ma daat ko bañ ko fekk boobu gaa yi xëy sigul te loolu bu xewee bu amee dañu bàyyi bi ñëpp xëy suñu àndandoo dem di jënd ko waaye kenn daal ci kenn yow donc jafe-jafe da la fekk te boobu gaa xëy seguñ maa dem génne sama euh, sama seel bi liggéey di fan pompe lënd yéeg ci benn benn xubu fee bi yéeg ci kaw nag di di xam naa daa dikk daa damaa dem nag ñu xam xama xama xamal ko maay kan mu daal bàyyi li muy def daal dikk ci man daal ne asalaamaaleykum waaleykum salaam ma laa soxla ma daal wàcc mu ne man de barab bi day ak rootukaay te kenn ko na nga fi roote te man nii nii nga ma fekk may doon loolu laa fi roote ma diggoon nag bëgg waxtaan see yow man wax nga dëgg de barab bi rootukaay la nee nga fay roote man mii damay root lii nga ma fekk ma def moom laay roote ak noonee ma doon def ak yow te dama noppigu maa ngi ñëw ñu mbokk sëkkal dañu ak da nga fa jóge man noonu laa fi roote jafe-jafe yi noonu la noonu la fi nekk woon waaw xaaral looy def nañ ko ci baax sëñ bàyyi sëriñ Njaañ ne ko jumaa jépp tëj ko def ko benn bunt tey caabi ji ubbi buntu ba toof ko dikk fekk lu fa dugg na nga xam lu génn na ko xam waaw noonu lañ fay doon dégg. boo xoolee sax moom sàmm googu ak ngir bañ jataay caaxaan yooyu am fi mooy sababu bi mu dagg garab yi waroon jumaa ji ngir seetlu jataay yi fi daan am ak yu mel noonu. Hmm. ngir seetlu jataay yi fi daan am te waru fi am. waaw waroon mu santaane ne garab yi nañ ko dagg. waaw waaw itam loolu tam di lu am liggéey bu am solo boo xam. Hmm, hmm. xëy na mën nañoo wax ne du woon sàmm cet gi rek. Hmm. waaye sàmm worma ji itam. worma ji loolu tam beneen liggéey la. loolu worma ji waaw. Eh, dafa kii. waaw ah. eh, léegi nag mu doon loo xam ne niñ ko waxee ci eh, njëlbeen. Hmm. liggéey bu diis la woon. Hmm. te ñi ngi ko siñ ko séqaloon. mën nañ ne yow rek yaa ci doonoon ndaw lu dese woon kàttan. ñi des ñëpp ay mag lañ. Muxaddamatul Xidma nag 1994. bi muy sosu seetlu boobu laa moom. gis ne. kat suñuy maam. ci lii lañ ne newoon. ci liggéey sëñ Touba. Mhm. ci sàmm barab war may barab bi mhm, mhm. ah léegi nag war may barab bi dem na ba ñi ñu ko teg ci seen loxo mu dis ci ñoom waaw léegi ñun lan la ñuy def lu ñu tee dem eh, jàppale leen ci liggéey boobu loolu mooy sosug Muxaddamatul Xidma ñu ñëw nag jël maanaam ànd ak yéen ci liggéey boobu ba tax tey fi ñuy waxee nii mag ñooñu ndax est-ce am nañu ñu fi des ba léegi sax mag ñi moom yàlla dogal na kenn desu fi ñëpp dem nañ waaw mag ñi moom kenn desu ci ñoom kenn desu ci ñoom um, ñoo fi nekkaloon yëpp maa fi des waaw yàlla yàlla jéggal leen yërëm leen te defal nu toog fa ñu nekkat ba ci kanam waaw defal na fi ñu nekk ba ci am te nekk li sëñ bëgg waaw dëgg la léegi liggéeyal Moukhaddamatoul Khidma boobu yow ak ni mu sosoo ni ma la ko waxee nga xam ne lii rek moo tax mu soso waaw liggéeyal Moukhaddamatoul Khidma fi la ma fekk man bi ngeen accès bi ngeen accès am solo liggéey bi tax na damaa dem bindu ji ak ci njëlbéen ma daan dem du du yëpp daa dem ba liggéey gi ak it sama yaram mayatuma lenn ba yëngu ma daan yëngatu ko daanaka sax ma tax du ko a waaye man ba ma ak da nga nekk ci bi sax waaye damaa bindu joon daan du ji yëpp waaw man man naa laa dama <laughs> dama <laughs> waaw waaw ñu may ma àggale ci ndaw yi fi nekkoon dafa am fu mu àggul euh, bi ma fee nekkee ba wér di euh, sëñ bi damaa teeralu toogloo ne naa noppalu naa noppalu ne ma fii bu ñuy màggal bu bu fi dem ji waajal fii fii ma bàgg ak yàlla ma dem ma ne fii muy jàmb fa dem jumaa ja jàmm nga dikk gannaaw ga yam dikkee ne ma dikk mën ma mën a saar ma def ma maa ngi feex mu ne yàlla na gën a feex eh, daal def ndànk waa ji daa xamul ne daa xamul lu yëmut fenn ku nekk da nga def loo man daal def ndànk rek te yàlla boo koy liggéey moo lay fay wax toomut lu am laa fay la koy fay kon nag daal def ndànk rek te laa yu kalif laa nafsan illaa maa aataahaa daal di woo ba ko ñu wax Abdoulaat Seck sama mbokk daara la ñu bokk mbokk nekk daara ji mm-hmm. mu ko Moodu Maamoun moom yebal ca jumaa ji daa wéeru te bëgguma ña ña ña ña fa nekk kenn kenn man cee ña ma fa ma fa yebal dama fa nekk fa ak moom waxtu bu tànnee ngeen ànd nekk ci liggéey ba. Ah, ba mu fi nekkee ba sëñ bi dem ginnaaw bi sëñ sëñ di wàcce ko mu dem euh, semaine pexe Fatma léegi yàlla na ko yàlla jégal. ginnaaw bi it sëñ Sidi ba mu euh, ba mu fi jëlee laat ba laat ba ba ba wàccee la sekk moomu mu andi fii ku ñuy wax alu bi tey ci mag yi kër sëñ bi lu woon waaye mu def ko diir bu gàtt daal di faatu mu andi faat sunu a jox bés bu duggee ci mag yi kër sëñ bi lu woon moom nekk ab diir daan faat ñoom ba tey ci jumaa ji nekkoon bu ko defee laaj bi nga laaj nag mu xëy a la ci laa bokk bañ koy soos te ñëpp ñëpp a bind ca laa bokk ca laa a feeñ <laughs> waaw doo du mën a feeñ ak may membre boo xam ne bii xañ na na ma war a doxee doxul ma ko ngir wéy ak mag waaw waaw ma goog ma ma goog ma mu dem nag liggéey bi ngeen dikk fekk na mu sonn ni nga ko waxee waaw liggéey métti na ndax mag ñi ay mag lañ néew nañ doole te liggéey bi bari na métti na jafe na bu ngeen dikkee ñu sant yàlla lool nag ngeen di doon wooy fa liggéey bi liggéey ba ba mujj ne sax ñun amatul léegi bu ne bubkat yi sax kenn duñu xalaat léegi muxaddimat ba la ñu wax ñu fiyee daanaka ñooy effacé wu lépp farlu muxaddimat sant yàlla rek te dee ñaanal yàlla mm-hmm. yàggal liggéey bi waaw te defal leen ñu tawfeex ji yaatu Eh, loolu rek la. waaw loolu sax mooy sababu. Mm-hmm. ñu delloo si émission bii. ah ma ko bëree bëree bëri. waaw xam lii ñuy wax nii. Ah. xamuñu ko lu bees la. si waaw ah, ma ko jàpp nañ ne jumaa ji moom. ba mu nekkee jumaa daa am ay imaam ay noddukat. Mm-hmm. tujjee ko tëj rek. Mm-hmm. waaye ndekete am nañu ko doon taxaw. waaw waaw waaye su mu xadamatul xidma. gis na liggéey bi diis na ci ñoom. moo tax ñu ñëw aw leen ci. di seenu njaboot ma ko ma ko ma ko di seenu njaboot ni nga ko waxee nag yow nga doon kenn koo xamante. ci ñooñu nga bokk. waaye bi ñu mu xadamatul xidma sosoo da nga ñëw nag tab bi ci biir liggéey mm-hmm, mm-hmm. ànd kook noonu tam mm-hmm, wax dëgg yàlla bañ ko sosee ci njëkk bi nu ko bokk waxee waaye itam ci ànd ak ñun ci liggéey bi li ñu def lépp nga doon def waaw dégg na léegi mag a ñëw néew bu doole ñëw uh, yenn yu mën toog waaye léegi liggéeyu sëñ bi yàgg ci ndax saa yoo xëy xëy si waaw ma ko ma ko saa si waaw loolu sax mu la sëñ li ma mujj wax sëñ bi ci la bokk boo xëyee rek na nga xëy loo mën nga loo mën nga bàyyi <laughs> loolu bokk na ci ma mujj boo ko sëñ Ablaat <laughs> boo xëyee rek na nga xëy loo mën nga def loo mën nga bàyyi sëñ Jaañ mi fa nekkoon ba ma dikk mel na day déggoo sëñ mi ne ma ne waxtu waxtoo fa nekkal del ñëw mm-hmm. <laughs> waaw tubaarkàlla kon uh, mel na ne li ñu doon séentu ci émission bi yëpp am nañ ko waaw tubaarkàlla waaw tubaarkàlla uh, sant nañ bu baax a baax waaw tubaarkàlla waaye itam di ñaanal mag ñoo ñu nga xamante ni ñoo doon liggéey sëñ Tuubaa fii. Mm-hmm. te tey ñu wuy ji seen borom. Mm-hmm. Euh, yàlla nañ dajee ngërëmu suñ amiin amiin amiin leen di ñaanal bu baax amiin amiin amiin yow mi nga xam ne kenn nga ci ñoom ci mm-hmm. nekkoon àndoon ak ñoom liggéey bi mm-hmm. Mm-hmm. te nekkandi fii ba léegi ñu ñaan suñu borom guddal sa fan sàmm amiin amiin ba lii ngay liggéey sëñ bi nga sax ci ay ati ati at amiin amiin amiin amiin amiin rafetlu nañ sa taxawaay bu baax tawakkal jërëjëf jërëjëf itam jàpp mu xadamatul tawakkal jërëjëf mooy sababu tey ñu tawakkal jërëjëf tawakkal dañ lay jox rek nga sa kàddu yi sa kàddu yi tàggoo yi tawakkal waaw di sant yàlla tey junti yont bi tey tey gën a jébal suñu bopp sëriñ bi nga xam ne pas-pas bu nu boole woon sëriñ bi tey buñ doon suñuy wéjur tey lañ ko gën a feddali waaw ñu gën a jébal suñu bopp sëñ bi fas yéene suñu dund gépp ñu pa wéye ko ci liggéey sëriñ bi rek nag tey ñaan yàlla nag suñu eblaat mi nu dimbali ba yar nu ci yar yar woo xam ne wan wan nañu sëriñ Tuubaa bëgg sutul lu may moom ah, teg na ci yoon waxee nu mu duñ ko duñ ci wàcc bañ koy fekk yàlla na ko yàlla fayal. waaw yàlla na ko yàlla fayal. jërëjëf mbokk yi kon loolu mooy jotaay bi nga xamante ni moom lañ leen indiloon tey ci eh, gaaw fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet atum deux mille vingt et juróom-benn fan ci weeru tabaski atum mille quatre cent quarante ci gàddaay gi. muy émission bi nga xam bu ñuy tuddee yow la yow la nag tey ñi ngi doon gëstu mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jumaa ji. ni ma ko waxee ci njëlbeen gi bi jumaa ji ubbee te sëñ Fallou laajoon mbooleem kër doomi Serigne Touba ku nekk yabal fi kenn ñu boole ko ñu am mbooloo moo xam ne ñooy taxawu jumaa ji ci saytu ko ci di ko setal waaye di sàmm worma ji ñu dajaloon ci nag euh, suñu mag ju baax Serigne Mouhamadou Mamoun Sarr gis ngeen wax ju am solo ji nga xamante ni yëkkati na ko fii kon lii lañ leen indiloon jàpp nañ ne bokk na ci émission yi nga xamante ni yi ëpp solo ci émission yow la kan la kon ñi ngi leen di dig daje ci weer wii di ñëw ci beneen numéro waaye itam ci beneen jataay boo xamante ni bu ñu war jàngat la bu ñu war a xamle la kon ñi ngi leen di tàggu foofu di leen ñaanal atum jàmm di leen wax wa kullu amin wa antum bi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi داري وثبتنه بالهادي الوفي